am na ñett ñoo xam ne sunu boroom da leen a jo dogal ngant ndax xam na ne dañoo tab ja duñ ko tal muy koo xam ne yaramam dafa naqari su bëggee jàng alquran it du ko def nam ko mane ndax du ko tal ku nekk ca xare ba di yëkkati diine yàlla jitam su ko bëggee du ko man nam ko bëggee ndax du ko tal waaye ku nekk ca waar wa di liggéey itam euh, du ko tal su ko bëggee du ko mën a defee nam ko mane moo tax mu ne faqra'u ma tayassara min alquran alima an sayakunu minkum marda wa axaruna yadribuna fi l ardi yabtaxuuna min fadlillah wa ma tayassara minhu kon am na ñoo xam ne la ñu yéene ci jàng alquran duñu ko tal ba tax sunu borom dogal leen ngant kiy liggéey nag da caa bokk liggéey nag bu ñu gisee ku baax kii daa ci soññee dafa am lu ca laxasu lu bari la ca laxasu nag moo tax mu ci daan soññee la ca laxasu bokk na ci nit ki su dee liggéey ba am lu lew euh, mu koy jëfandikoo mooy tax ñu nangu jaamu yàllaam yi waaye kuy lekk lu lewul du ñu nangu ay jaamu yàllaam moo tax sëriñ bi wax ne laa yanfau l ilmu wala al ibaada bil akli lil xaraami inda saada nee na lu mën a doon ci lu baax soo ko booleeg jëfandikoo lu lewul sunu borom du ko nangu kon ndeke ba mu koy santaane di ca ñaaxe dafa am lu ca laxasu bokk na ci li ci laxasu tam moo di soo liggéeyee euh, ba am lu lew di ko jëfandikoo day tax jëf lu baax dalay yomb jaamu yàlla dalay yomb moo tax mu waxaat ko ni fa kul xalaalan in aradta an tuti allaha wa rasula ya hada al muti yow miy góor lu ci topp yàlla ak yonent bi soo bëggee mu yomb la del lekk lu lew sunu borom sax wax na ko yaa ayuha rusulu kulu min altayibaati wa amalu saaliha kon ndekete soo dee jëfandikoo lu lew day tax jaamu yàlla dalay yomb soo dee lekk nag am lënt faaw nga jëfum lënt boo dee jëfandikoo lu ñu sib faaw nga jëf lu ñu sib moo tax mu waxaat moom ku baax ki ne yaa saaxikul ma chita tafaal mislahu wa xaalilan man chita tardu shaklahu ba tey am na leneen lu ci laxasu mooy boo dee liggéey di am lu lew di ko jëfandikoo day tax soo dëkkee yàlla say loxo di ko ñaan da koy nangu waaye lekk lu dëgganul mënta ànd ak ñaan gu nangu mënta ànd moo tax am na ku bokkoon ci saxaaba yi waxoon ko tedd ka ne ko ñaanal ma ma am lijaabatu mu ne ko atib mataamak tustajab daawatuk na ngay lekk lu lew kon soo ñaanee sunu borom du ko nangu nee na sax kuy jëfandikoo lu lewul di ko sol euh, di ko lekk ba noppi nag dëkk yàlla ay loxoom naan yaa rabbi yaa rabbi nee na fa anna yustajaabu la neena kooku ana nu ñu nangoo ak ñaanam kon ndekete dafa am lu ci laxasu moo taxoon ku baax ki daa ci soññee bokk na ci tam li ci laxasu moo di soo dee liggéey euh, ba am sa yëf dangay ngay mënal sa bopp te ab jullit dafa war a manal boppam ndax su mënul boppam dañ koy manal te ko ko manal da koy sañal moo tax nit ki dafa war a góor góorlu di fas faste xànc ak moroom ma mooy tax mu manal boppam te soo mënulul sa bopp yittewoo nit ñi te nit ñi fa ñu lay wommat jëme mën naa am du doon fu ñu gërëm moo tax gis ngeen sémb bu ñu mos a sémbu te sëmbal ko lislaam euh, ñëpp a cay jàpp ndax kenn ku nekk da ngay def la nga man muy barab bii ñu toog ba ñu ko sémbee ku baax ka dafa tobi aw sas muy ñaar fukk ak juróom-ñett sas ko ñëpp moom lañu tàmbali tàmbalee liggéey bi ku mos a toog nag jataay bi dangay fexe ba sémb yi nga xam ne moom lañ ko sémbal te lépp di sémbi diine dangay fexe ba yoonu kenn du ca nekk doo tàllal sa loxo waa biirum réew waxuma wa waa bitim réew loolu nag ñaan gu nangu la an qis iyaali min addalaali wa bil xalaali xallit saraa i kon loolu ñaan gu nangu la kon ndekete am na leneen lu laxasu ci liggéey ak faste xànc ak morom ma moo day tax nga mënal sa bopp soo ko defee soo manalee sa bopp nag da ngay sañ ci sa bopp dafa am yoo xam ne da caa laxasu bokk na tam ci li ci li ci laxasu moo di kii liggéey dëgg dëgg dëgg moo wakiirlu ci sunu borom xam nga ni ki toog rek du def dara jàpp ne dafa wakiirlu déedéet loolu du wakiirlu loola moom yaccaaral rekk la nit ki dafay kër-këri te bàyyee lépp ak yàlla xam ne lu am yàlla moo ko def am am na ku daan nekk ci jumaay Madina wara du fa jóg xanaa rek di fa jaamu yàlla waaye bis Seyduna Omar ibnul Xataab yàlla na ko yàlla dolli ngërëm ak leer dal koy seetlu wax ne kii moom ana fu muy jëlee lu muy jëfandikoo lu muy mos ñu ne ko mbokkam mbokkam moo koy yónnee lu muy mos mu a axuuhu abadu minhu mbokkam ma koy jox lu muy mos de moo ko gën a jaamu yàlla kon deke toog toog rek doo def dara kenn du ko wooyu wakiirlu liggéey teewul nit ki wakiirlu waalam bi ann al kasba laa yunaafi tawakkulan laa takuza itlaafi da kër-këri te xam ne lépp loo am sunu borom moo la ko jox xasbuka min tawakkulin an laa tara mujriya rizqika siwa rabbil wara kon li nekk ci bitti nit ñi di ko gis mooy del kër-këri waaye sab xol moom na nga bàyyee sa bopp ak yàlla xam lu am mooma fa zahiran takassab imtisaala o batinan istaslim itikaala kon ndeke liggéey day wane dëgg-dëgg ne yow yaa kiirlu am na leneen lu ci laxasu moo di nit kiy liggéey day sawar day njaxlaf te lislaam ki mu soxla mooy ku sawar mooy ku njaxlaf xam ngeen ne ku baax ki ba mu nekkee gànnaar da daan taamu ña ko fay fekk mooy nit ku euh, njaxlaf nit ku sawar ku dëgër ñoom rek lay nangu ñu ko fay fekk waaye am na nooy mel du sawar ci nga di ko fa fekk ndax lafa nekk ci coono ku dëgër moo ko mën a dékku kon ab jullit dafa war di liggéey ndax mu dëgër wa xuliqal badanu xiinama futir li kasrati li kasratil xidmati fii ma qad umir yaram dafa war di sonn euh, ba sawar ci jëfe ndigalul sunu borom fadaatan wa raxatan lan yusira na arada an yakuna musira ku bëgg a jëm fenn danga nga sori loxoy nen ak noflaay ndaxte al muminu al qawiyu wa ahabu ila allahi min al mumini jullit yëpp la yàlla soxla waaye bi mu gën a soxla nag mooy bi nga xam ne dafa am kàttan dafa njaxlaf dafa sawar waxaat na moom sëriñ bi ne kun nashitan wala takun kasula wal tujibil ilaha wa rasula na nga sawar te bul tayeel te bu yàlla digle ak yonent bi nga daal di gaaw jëfe lañu santaane kon ndeke li laxasu ci liggéey dafa bari ki nga xam ne nag jullit la rawatina taalibe su liggéeyee ba sunu borom baaxe ko nag la mu ko baaxe nag bu defee ne jaanam wàcc na déedéet su boobaa nag lañ koy door a tobbil aw sas mooy li nga yore dafa am nag luñ la ci sant doo liggéey rek ba am ko daal cey goor euh, mu yem ci yow képp nit ki day am njariñ njariñ lu yaatu loo xam ne day làmbaale ñu bari bokk na ci am njariñ say wayjur nga taxawu leen nit ki day liggéey ndax mu am lum taxawoo ay wayjuram nit ki day liggéey ndax mu am lu mu jokke ak bokkam ndax ak bokk des na ko dox ak bokk des na ko wax waaye am na ci loo xam ne jëf rek moo ko man nit ki day liggéey ndax njaboot gi ko sunu borom booleel dafa war a xam ne léppam seen lépp moom la war te itam lum ca jëf suñ borom da koy fay boo taxaw a say wayjur suñ borom da lay fay boo rafetale sag mbokk di jëf ci ñoom lu baax suñu boroom dala koy fay njaboot gila yàlla dénk muy soxna ak i doom ak i jarbaat ak ñu ne demee tam loo def ci ñoom sunu borom dala koy fay euh, as gorit kenn du ko jaay ak a jënd waaye teraanga mënasta ca moomi as gor kon nag teral gor yi ba moom seeni xol nit da caa war góor góorlu wala tazal ilayhi za ihdaa i lahu bi ma stataata min ataai walaw qalilan limtisaali ma warat min annaha tazidu xubba man yawat kon nit ki fexe ba mu sopp la ci teraanga jooy séq ak moom ab taali bi da ca war a góorgóorlu ab taali bi day liggéey ndax bu gisee ku mu tane donte bokkuñu wal donte xamul lañu bokk mu euh, liggéey liggéeyal yàlla ci moom di jaamu yàlla ci jaami yàlla yi te xam ne sàkk sarax lim man dafa bari sëriñ bi wax na ci masaalik ne juróom-ñaar fukki dee yu ñaaw sàkk sarax mën na ko fekk sadaqatun waxidatun qad tadfau sabiina miitatan suu i fau kon di jëf lu baax ci ñi nga tane loola tam war naa tax kenn ku nekk di liggéey jamono jii ñu toll nag ku xool gis ne ndaw ñi ñoom ñëpp dañoo buur di wuti lu ñu am loola lu dal xel la lu dëgëral yaakaar la mooy ndaw ñi bañ a tëdd di nelaw waaye buur ñoom ñëpp di wut lu ñu am waaye nag wutiinu wa mat naa seet nañ koy wuti ji ndax lu mel ni aj màkka di farata di ponk bu lislaam sax dafa am ay charte mooy da nga koy man euh, te da koy doxale nañ ko war a doxale waaye wuuti euh, jërul jaay bakkan ndax sunu boroom mooy joxe wala yakunu gayru ma yuridu walaw xarista ayyuhal riidu waaye nag laxasaayu di wuti liggéey lu dal xel la lu sedd xol la ñun ñëpp nag ñoo war a la gën a laxasaayu ndax xam nañ ne sémbu yi nga xam ne sunu kilifa gu mag gi moom la sembu du sémbi caaxaan te waxal na boppam ne euh, bis bu sottee tam la koy doxal moo gën a diis te lépp lépp nag yaakaaruñ ci kenn ndax ëtt bi xamuñu di tàllal seen loxo ci bitim réew waxuma la ci biirum réew kon nag lépp ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom ngir jëme yàlla ñoom rek rek rek ñoom la war kon nag futtiku liggéey ba kenn ku nekk am loo jàpp ku am lu sakkan buy jëf na jëfee na mu toll ku am tuuti itam buum ne awma lu bari na jëfee na mu toll wala tajal yadaka maglulatan ila unuqika wala tabsutha kulal bast kon ñëpp nañu jàpp ci sémbam bii ak yeneen sémbu yu bokkut ak sémbu bii ndax kenn ku fi toog ku ne euh, da ngay sémbu rek di liggéeyal yàlla su ko defee nag ña nga bokkal jamono ñëpp nag jàpp ca mooy tax ndam lu mu am ñëpp bokk ko ak moom kon yàlla na ko yàlla gën a sàmm gën a guddal fanam gën a yokk ndam yi muy sàkku ndax bu ko amee dañ koy am dañ koy bokk ak moom kon yàlla na yàlla defal ko ndam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi